yow yaa matal loola te yàlla mën a berale kuy bañ nga jiitu ko loole muy bañ ay xalaam nga dem ba taayi ba gis jumaam ja jàll pale yàlla koo jiital ku bañ nga jiitu ko loole muy bañ ay xalaam nga dem ba taayi ba gis jumaam ja jàll pale yàlla ko jiital wér xëy bopp